kon ñi ngi waat fii ci euh, télévision Maraxib TV taxaw ak sunu waajur sunu kilifa muy Baye Talla Diop mi nga xamante si ni moom moo fi teewal waa kër Serigne Darou Assane Ndiaye Baye Talla bu baax di la siyaare sunu kilifa googu wàcc bu yàggul muy Serigne Mbacke Faty la nekkoon xalifa Serigne Darou Assane Ndiaye kon bi dañ lay laaj rek maanaam lan nga ñu mën a baaxee ci Serigne bi ñun ñi nga ne ndaw lañ maanaam kàddu yoo xam si ñu a a baax a toppaat suñu seen seen seen ay digal bisimilah waa kay bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatulah euh, ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen balwaa dàq di den xamal ne sëñ bi xam ne moom nga may laaj muy sëñ ci la jaay maanaam li ma ci xam lépp xajul ci eh, bis bi ndax man naa ne moom a yar ndax koo xam ne kii anagam lu mat juróom fukki at ak nangam kooku loo xamul ci moom amut waaye xamul ci moom lenn lu dut ak teel bi ak bëgg ndigal jàmbaar Pastef loolu moom lañ xam ci moom bi wér a wér a wér te itam xanaa suñu tàggante waaye lu ne def na ko ci ñun lu nekk def na ko ci ñun lu luñ mënul rek suñ suñ suñ suñu càggan su bopp mën ko yóbbee waaye buñ buñ ko buñ ko toppoon buñ leen toppoon nañ nañ doon nañ doon traîner kon kon danañ nu suñu bopp waaye ñoom lañ mënoon ci lépp def nañ ko ci ñun jàmbaar ji véré véré véré véré véré jëmut ay caaxaan bëgg yàlla bëgg yonent bëgg def na def naka jekk jërëjëf ah, jërëjëf kooku ma nekkoon Baye Talla mi nga xamante si ni moom moo fi nekkal waa Kër Sëñ Ndiaye seen sëñ di ko ñaanal bu baax a baax moom it li muy ñu yoon suñu borom defal ko lu koy njort ne fii si eh, Maraxib TV fii ci télévision doon defal sunu kilifa sunu sëriñ sunu lépp muy sëriñ Mbacke Fassila Ndiaye mi nga xamante ni moo wàcc barki démb nekkoon xalifa xalifa sëriñ Daaru Assane suñu borom jot la ca booba yool te taas ci barkeem ñu taxaw nag kenn ci koo xamante ni ci waa sëñ Daaru Xasan Njaay la bokk mi ngi nii suñu wet kon sëñ bi ñu ngi leen nuyu di la siyaar bu baax a baax lan nga ñu mën a baaxee ci sëriñ bi waaw li leen mën a baaxee de man maa ngi tudd Fallou Ndiaye di toll bépp sëñ Mbàkke Fat Sylla mii ñu fi jàngal tey ñu ngay koy commencé nag di sant maanaam Baye Talla Diop ak mbooleem ñi fi bokkal nekk ñëpp ak fu tarixa mën a nekk rek teew na fii tey ñu jàng fi alxuraan ji sell ak xasaayid yu kon nag wax yàlla mbooloo mi moom mënuñu leen a sant sëñ Tuubaa mi am fay daal yàlla na leen fay képp ku fi teew daal te sëñ Tuubaa rek tax ak yonent bi tax yàlla na la yonent sëñ Tuubaa fay sëñ bi nag moom maanaam euh, liñ ci man a wax bari na waaye xañ na suñ xol maanaam moo fees maanaam ba li lépp mënuñu ko wax ndax dama ko xañ na jege woon naa ko lool ba lu bari xam naa ko ci moom ndax nit ko ko xam cib taal bi nga ko xam képp ko xam cib taal bi nga xam liggéeyal sëñ Tuubaa liggéeyal Cheikh Moustapha loolu rek ci leen ko xam ba seex yi maanaam seex Cheikh Moustapha yi moom moo ko jiite woon bi fi maam sëñ Moustapha Gaye jógee waaye képp ko xam ci lu baax nga ko xam ak liggéey Sëriñ Tuubaa man day sas wu ne sas na ma ko waaye lépp lu ma moo wax ma sa wax rek ndigal lay doon lu jóge ci sëñ bi waaye doon yëfi boppam bu doon yëfi boppam moom kon mën naa la maanaam yor na ay itaas mais ku dem ci këram nga xam ne maanaam sëñ Tuubaa rek la fi nekkaloon waaw jërë ngeen jëf ñoo ngi jégalu baax a baax jërë ngeen jëf jërëjëf waay jëriñ kon sant nañ bu baax a baax moo nekkoon Serigne Fallou Ndiaye nekkoon moom it taalibe Serigne euh, Mbacke Fat Sylla Ndiaye ci moom mi nga xam si a baax di eh, ni mooy suñu yéene ci bis bi kilifa suñu suñu lépp muy Serigne Mbacke Fat Sylla mi nga xamante ni moo fi bàyyi ko nii di ni moom taalibe Serigne Serigne Mbacke Fat Sylla la woon ak Baye Mor Diop mi nga xamante ni moom it ci waa kër gi la bokk kon sëñ Mor ñu ngi lay nuyu baax di la siyaar. bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah waa euh, Maraxib TV télévision Maraxib TV ñi leen di siyaare yéen ñëpp di rafetlu seen teewaay fii ci bis bi nga xamante ne si lañ ñaane suñu jàmbaar ja Serigne Mbacke Faty Sylla Ndiaye xéewal nga xam ne ku ko xam xam ko ci ak oyof ak baax lool te maanaam euh, nekk taaliba boo xamante ne bii ku ràññee la mooy bi muy ànd baayam ba bi muy ànd ak ay magam ba suñu borom teg ko lii mu ko teg muy xalifa euh, général bu baayam di xalifa généralu kër maamu ci waa Kër Sëñ Daaru Asan nga xam ne jëmm la joo xam ne wax dëgg yàlla képp ku ko xam rek ku xam ci moom dara rek moom euh, da nga xam ne euh, taaliba bu mat sëkk la maanaam li mu doon. nga xam ne maanaam wax dëgg yàlla biñ ko yëgee ñun suñu xol dafa dafa dafa fees dell yàlla xam na ne day biñ ko yëgee amoon nañ mbetteel lool. wante nag suñu borom moom mooy dogale noonu nga xam ne moom bu soxlaa képp ku soxla da ngay wante nag euh, ñoo ngi ñaanal waa daayira Touba Treviso bi nekk fii di xidmatul xadim ak euh, Maraaqib TV bi nga xamante ne moom moo ko teewe woon kenn ku nekk xam na ne euh, lu mel nii yombul wante nag jàmbaar moom su làqoo moom kenn ku nekk rek loo jàppandi ko bàyyi ñëw ngir feeñal sa yéene feeñal sa sa sa sa lépp rek maanaam ngir taas si barkeem ndax dañuy ñaan suñu borom taas ñu si barkeem rek waaye xel wax dëgg yàlla dal na ci moom lool ndax kenn ku nekk xam ne li ko bàyyi woon mooy ku amoon ak ak amoon ak ak ak dégg la ci ay kilifaam wax dëgg yàlla li mu li mu jiite woon tamit nga xam ne mooy Cheikh Daara Khoudoss yi tamit ku ci amoon pastef la ndax dégg ngeen seede yi ko sëñ Ahmadou Makhtar seede ak seede yi ko sëñ euh, Abdou sëñ Abdou Xaar ñu koy wax sëñ Abdourahmane waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah ñi leen siyaar yéen ñëpp nag di mbég am mbégte lool ci teewaay gi jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf waaw jërëjëf kon kooku moo nekkoon Serigne Mor Diop mi nga xamante ni moom ci waa kër Serigne Mbacke Fassil la bokkoon moom it ci waa kër gi euh, kon bu ko defee dañuy jàll ci sunu waajur mooy Baye Mor Diop moom it bokk ci waa kër Serigne Darou Hassane Ndiaye Baye Mor ñi a baax Baye Mor lan nga ñu lan nga ñu mën a baaxee ci sunu alhamdulilahi rabbil alamina arrahman rahim maliki yawm diin ah sant yàlla yonente bi sëñ Daaru Asan rek ci ko sant jëmm joo xam ne nii wax dëgg yàlla day neex naa waxtaane jafe naa waxtaane neex naa xam neex naa naqare na xam jëmm lu joo xam ne day man day xamu ci lenn lu duñ jullit ak bëgg Serigne Touba di teel bi bu wér teel bi Serigne Daaru Asan Daaru sañ Sëñ Mbàkke Mohamed borom tey bu wér waaw yame woon ñëpp na xamewul woon kenn xam nu teel bu kii ak kële sëñ ku yaakaar sëñ daal moo ko moo ko moo ko neexoon te waye foon lool nag xamiwul gone xamiwul mag xamiwul góor xamiwul jigéen boo ko masaan fekk ci mbooloo boo ko xamee lu baax bu ñu laaj kii sëriñ Mbàkke Faty Sylla xam sëriñ Daaru Asan Njaay doo ko xam waaye nag jaama yàlla ak dogalam suñ borom moom bu soxlaa ñëpp ñàkk man de maa ngi sant yàlla ak yonent bi sëñ Tuubaa baax sant sëñ Daaru man na damaa amoon ab cër boom boo xam wax dëgg yàlla dama yaakaar menn man na jëmmi sëñ Tuubaa Mbàkke ñëw na sama kër guddi ñëw na fa bëccëg waaw man moom doo doo doo lii moo tax may wax sëñ Tuubaa rek ak yàlla sëñ Daaru Rasuul moo tax may wax dama ci amoon cër moom boo xam ne wax dëgg yàlla man yaakaar mel ne moom donc am waaw ndax bi jamono sëriñ Mbàkke Mouhamed Taïf bii di def ngalu Brescia gii di am na fa kaset boo xam ne sama kër laa ko jox mu seetaan ko ba mu jeex ak guddi mu ànd ak sama baay radiyallaahu yàlla na sabaram yokk leen daal suñu barkeem kero dee nangu naa ji gémmiñam sama nopp bi mu ne ma yow li nga am am sëriñ Mbacke Mouhamed nun amunu ko sëriñ Mbacke Mouhamed ba ma gëj a gisee ëpp na ñaari at ma ne ko sëñ bi noonu nu mën a nekk mu ne man sëriñ Cheikh Fatou Sylla Ndiaye sama sëriñ su ma fa demee moom fa yónni sëñ bi loolu lu yéema la waaw man de wax dëgg yàlla toog naa sëñ bi daal cantu gaar na ngërëm barke sëñ waa jërëjëf kon jërëjëf kooku mu nekkoon Baye Mour Diop moom it bokkoon ci waa Kër Serigne Darou Assane kon ñu ngi lay ñaanal baax a baax di ñaanal sunu kilifa googu suñu borom yërëm ko te xaaru ko aljana tax suñu barke barkeb Cheikh Moustapha jërë ngeen jëf mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen siyaaru baax ñu ngi taxawaat fii ci ñaan gi nga xam ne si moom la amal fii doon ko defal suñu kilifa suñu lépp muy Serigne Mbacke Fat Sylla Ndiaye euh, xalifa Serigne Darou Assane Ndiaye bi nga xamante ni moom mu wàcc bu yàggul di ko ñaanal bépp ñaan bu ñu fi ñaan rek yàlla na ko Serigne Touba jotale ca booba yool te taas ñu ci barkeem ñi ngi xamante ni mooy kuréel Touba Treviso ni moo nekk fii ci Treviso ak suñu jëwriñ ci euh, njàng mi muy Serigne Ousseynou Fall ak Serigne Moustapha Fall ki nga xamante ni mooy jëwriñu kuréel gi muy Serigne Mor Diop Serigne Mor Diop nag taalibe Serigne Mbacke boo xamante ni moom fesoon na ci kër googu lool kon Serigne Mor ñu ngi lay siyaare di la nuyu bu baax a baax di la jox kàddu gi nga sant mbokk yi nga xamante ni ñoom nga àndal liggéey bi bisimilah. Euh, waaleykum salaam wa rahmatulah sëñ euh, euh, Omar Diaw ñu ngi lay ziare di ziare waa Maraxib TV ñu ngi leen ziare bu baax a baax. waaw di am mbégte rek ci teewaayu waa kuréel Touba Treviso gi nga xamante ni bii wax dëgg yàlla bàyyi nañ seen lépp ngir bis bi waaye nag wax dëgg yàlla ki nga xamante ni moom lañ ñàkk muy sëriñ Mbacke Fassila Ndiaye xéewal di xalifa sëñ Daaro Sane di xalifa sëñ Bay Fallou Ndiaye di sama wasila di ñaanal nag ki nga xamante ne bii mooy ab taawam di sëñ Cheikh Darou sëñ Cheikh Darou euh, Ndiaye yal na ko yàlla may fan wu gudd ba euh, li nga xamante ne bii moom moom la ko yàlla dénk muy wutu baayam yàlla def yan bi mu oyof lool ci moom mu mën a uuf ay rakam suñu borom dimbali ko ba lépp lu mu bëgg rek suñu borom euh, dimbali ko ba ba mu yóbbu kawe kawe kawe njortu maanaam taalibe yi kër sëñ Mbacke Sylla man am naa mbégte lool wax dëgg yàlla ndaxte ñi nga xamante ne bii ñooy samay àndandoo fii nga xam ne ñooy kuréel Touba Treviso mooy ñi jëmm yi yëpp ngeen gis nii wax dëgg yàlla tubaarkàlla macha allah lii rek lañ fi nekk ñun waaw wax dëgg yàlla foo ñu fekk ñoo ngi ci xas yi ñoo ngi dem ci eh, yi nga xamante ne bi mooy màggal yi wala lu mu mën a doon rek nga xam ne xës day suñ tubaab fu ñu ko yëkkatee rek jëmm yu baax ñu ngeen ko gis ñoom ñooy teew ñoom ñooy ànd ak man ci lépp waaw ma am mbégte lool wax dëgg yàlla ànd ak ñoom ndaxte réccu ma benn yoon ndax képp koo xamante ni bi jaxasangoo ak ñoom jaxasangoo ak ñoom rek da nga sant yàlla baax a xam ne nag lépp lu du xasida rek xasida moo la gën waaw loolu moom am naa ci mbégte bu baax a baax seen maa ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp surtout Maraqa Piir bi nga xam ne gis nga ni taxawee ci bis bi macha allah waat nag di ñaanal suñu jàmbaar ja duñ ko fàtte mukk saa su nekk di leen sàkku ñaan nag ngeen ñaan ko baax baax mooy sëriñ Mbacke Fassila Ndiaye xéwal mi nga xam ne moo fi jóge barki démb waaw am nañ mbégte lool macha allah jërë ngeen jëf kontaan nañ lool nag suñu xol fees na ba mënuñoo wax lépp loo xamante ni moo ci dëng daal na nga ñu ko jéggal lépp lu ci jub nag ngeen xam ne baaxu sëñ bi rek la waaye ñun moom tuut na lool ci wax lii nga xamante ni bii mooy ñu fi teewal ndax mbooloo mi bari woon na lool macha allah sant nañ bu baax gërëm nañ bu baax jërë ngeen jëf kon jërëjëf suñ moor ci eh, kaddu yi nga xamante ni yëkkati nga ko jëmale ko ci jëm yu tedd yi mu doon kaddu yoo xamante ni kaw na lool kon dañu ñaan rek eh, bépp ñaan boo xamante ni ñaanal ko fi yàlla na ko sëriñ bi nangu kon bala ñoo def dara rek dañuy jox kenn ki ci ci waa gi muy sëriñ Ousseynou Fall moom it moo sànni ci ay kaddu bisimilah. bisimilah asalaamaaleykum euh, mbokki taalibe ñoo ngi leen di ziar bu baax te di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di wax ni liggéey bi nga xam ne moom lañ doon def si fii tey euh, mooy liggéey bi ñu baaxoo def saa su te it liñ ciy sàkku rek mooy lépp luñ fi jàng ci alxuraan ak xasida ak luñ fi yëkkate mu fekk eh, sëriñ bi nga xam ne moom lañu doon ñaanal eh, fa mu ne sëriñ Tuubaa defal ko ay xewal yu yaatu te def xasida yi sëriñ Tuubaa di wettalam fa mu nekk eh, di ziare mbokki taalibe yi fi teew yi yëpp di wax ni nit moom mm, dund ak mm, wàññeeku ñoo ànd waaye fexe ba diirub ñu fii ne ñuy góorgóorlu ci def yu baax yi tey moytu yi nga xam ne dañ ñu koo tere Euh, xëy na loolu rek la loolu rek lañ fi doon wut si ñun tamit ci wàllu euh, joxe si lu baax ak di ñaan sëriñ bi defal ñu tawfeex te ñu yàgg koo teewe euh, te yu mel nii sëriñ bi musal ñu maanaam def mu gëj fi def mu gëj fi te xalifa bi nga xam ne moom moo toogaat ci toogaayu sëriñ bi suñ tuwaay guddal aw fanam te yéene yim am yëpp mu mottali ko te ànd ko taalibe yi ci barkeb xasida yi jërë kon jërëjëf kon kàddu yi mën na sëkk te it ànd na te it ànd na ko kon jërë ngeen jëf ñu ngi leen bu baax baax suñu moom ñu ngi lay jàll di leen siyaare sa sëriñ boobu nga xam ne si mooy sëriñ Mbacke Fassila di ñaan ak bépp ñaan ko fi ñaanal yàlla na